di lu bu baax a baax manque de considération bi mu nemmeeku ci yëf yi nag te ne pare na ngir défendre li mu jàppee patrimoine bu ville bu Dakar. comment peut-on démolir cela? nan la ñu mën a tojee lu mel ni marché Sandaga te yëgaluñ ko kenn waxtaanuñu ak ñi nga xamante ne ñoom la ñuy liggéeyal avocat yi nag dinañ wéyal procédure yi fexe défendre li nga xamante ne rek suñu moomeel la ba bés rek buñ ñu koy delloowee lu ko mooy nag dinañ décider leneen lu ñuy def. ou mu mel ni nag moom soo am Wardini du wéet ci bile xeex. sama kàddu samay jëf samay xalaat lépp jox naa ko maire Dakar pour mu doxal ba Sandaga nekk moomeelu Ndakaaru ville de Dakar parce que loolu la yow. Cheikh Gueye profite aussi itam di woo pàcc yépp ci ñu jiital li nga xamante ne rek moo di waxtaan ak diisoo ci mbir mi ndax jàpp na ni marché Sandaga patrimoine la mu ngoog patrimoine la am déet lu mu ci man manti doon yaakaar naa ne war na mën a am ku arbitré Birahim ture ngir ñu xam nag fan la marché Sandaga féete xam nga euh, ñu ngi annoncé euh, action ci wàlluk yoon ça veut dire mhm. donc yoon peut-être dina àtte foofu waaye euh, boo xoolee ñoom ñaan ñëpp ku ci nekk sa argumentaire bi nga génne muy Alioune Ndoye maire Dakar Plateau nga xamee ni dafa sukkandiku ci acte trois de la décentralisation ci wàllu communalisation ci argumentaire lu soxal mbiru marché ci turu marché kese waxul ci wàllu batiment mais marché bi ci boppam da nga argumentaire am euh, taxaw na soo am waat ni indil la tamit beneen argumentaire moom ak mairie Dakar ville euh, muy xam xamle ci wàllu batiment bi ci boppam di Sandaga euh, di patrimoine bi mu doon gis nañ tamit ay architecte yoo xamee ni ku ci nekk yaa ngi ciy yëngu ci wàllu <coughs> bâtiment boobu nga xamee ni moom mooy bu marché sàndaga ak daaneel bi ñu ko daaneel ndax yàgg nañu ko xeex ne ni bu ñu daaneel bâtiment bi parce que euh, dafa bokk ci patrimoine dafa bokk ci xar kanamu euh, Dakar te loolu depuis déjà plusieurs décennies léegi nag comme dugal nañ ci wàlluk yoon dañuy bàyyi yoon def liggéeyam ci wàllu woowu mais ku ci nekk di nga xëccoo ci sa euh, ci sa wàll ci lu soxal mbirub marché Sandaga bi malheureusement am na ay jamono boo doon jël carte postal Euh, nga ñu jaay ko fii ci Dakar ci jamonoy carte postale mais dafa am ay image yoo xamee ni mhm. dafay des marché Sandaga ci la bokk mhm. euh, tey dafa mel ni euh, fii yaakaar naa mooy repos Mandel koy woowee mhm. ah, repos architecture bi dafa nekk histoire maintenant Dap comment conserver justement euh, loolu mm-hmm. mooy projet bi ñu jël pour mm-hmm. euh, defaraat marché Sandaga <coughs> ci même anam yi ak même architecture bi euh, donte nag ba léegi day nekk góom boo xamee ni am na ñoo xam ne duñ ko mën a supporter El Hadj que du andi ay gàllankoor ci liggéey bi nga xam ne war nañ koo tàmbali gannaaw ba ñu ko daanale ndax nag euh, Alioune bu fekkee wàllum travaux yi moom ci boppam daf ci dugal ab kopparam waa mairie bi je veux dire ci dugal ab kopparam xel ba yemb mu nañ koy jox waa ville xam nga xam nga ñun lu ñu ku ñuy laaj travaux yooyu mooy gouvernement bu Sénégal. Mhm. man ci jamono nguuru Abdou Karim Fofana bi mu nekkee ministre bokk Aly Ngouille Ndiaye donc dafa war a nekk 100 pour état bu Sénégal lu jëm nag ci wàllu atte kii moo ko moom wala kii moomu ko. question ñu respecté dogal yi bàyyeekoo ci acte décentralisation est-ce que bu fekkee am na loo xam ne patrimoine la mondial dañu koy boolewaale ci li ñuy euh, affecté mairie comme ni ñu ko bindee ci acte trois décentralisation ñoom xam nañu bu ñu ko bindee xam nañu bu fekkee binduñu ko parce que texte yi mu ngi fi bu fekkee du benn yoon bu ñu ko tuddee euh, ville bu Dakar moo moom parce que bu boobaa tudd benn yoon patrimoine dem bokk ci euh, li ñuy transféré euh, commune bu mu man di doon loolu benn la ñaareel bi ci des maam saa boo déggee commune ñaaree di réclamer di wax mmh. communalité commune bi mu doon ak li nga xam moom la moom dafay fekk muy buy tàllal loxo maanaam loo xam daf koy jot. Mhm. mais tey bari na ay compétences yu dañu ko transférer commune yi mu bokk ci acte trois décentralisation. te saa mhm. bu askan wi defee manifestation la ñuy jot comme réponse yi mairie ba mooy. du suñu mhm. compétence du suñu compétence. tey laaj nañu leen ñoom seen participation bu weesoo ay fourniture scolaire ci wàllu éducation néew na lu ñu koy def ci wàllu tabax ay bérébu fajukaay néew na lu ñu koy def ku ko fi ku ko fi def day siiw parce que boo koy inauguré kenn dootul dégg cest à que gouvernance locale moo sooxe. Mhm. parce que dañuy jël lépp lu ñu am te du ñu delloo ci askan wi li askan wi xaar ci ñoom doxalin boobu nag moom la ñu war a soppi tey bu ko defee bu ñu yeggee ci yu mel nii xëccoo bii nii mun naa bañ a am parce que dafay fekk mu leer gis nga xëccoo bii am ci diggante ñaari maire yi gouvernement bi la neex de moom moo boyal taal bi. bu ko mhm. neexoon mu ko tout suite. parce moom moo koy moom moo ko daaneel moom moo ko fay tabaxaat donc xam na kan moo ko moom lan la jublu nag ci tiraillement boobu. yàlla rek bu bëggoon mu dakk tey mu dakk tey ayca CUDOPES la ñu tudd kuréel googee moo di cadre unitaire des organisations des établissements privés d'enseignement supérieur du Sénégal euh, kuréel googe nag nee ñu dañuy dàq étudiants yi nga xam ne nguur gi ñoo leen ko dénkoon gannaaw ba université.